site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top plus lu jëm ci walu actualité sin TV nek fichier ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاد عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم بعدله جميع الموجودات ففضل بعضهم على بعض في الرزق والبعض بالعلم وتعليم الآيات والبعض الآخر بما شاءه من سائر الخيرات أحمده سبحانه وتعالى وهو مستحق المحامد والتسبيحات وأشهد أنه لا إله إلا هو أحسن الأسماء وأكمل الصفات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة المخلوقات بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانات الداعي إلى سبيل الخيرات والهادي إلى أقوم الديانات القائل غيركم من تعلم القرآن وعلمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات صلاة تتوالى, تتوالى مع الأيام والساعات إلى يوم بعث الأموات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلين زيارة دلين بالو أق تدلين بال أق di ñaan yàlla mu boole ñu baal ñaan yàlla itam jotaay bi yàlla ko yàlla peege ak yërmande bépp soxla bi fi waay indi muy soxlaay jàmm yàlla ko yàlla facc ba dee safaan yàlla na ko ci yàlla génne xam naa ne suñu waxtaanu tey ñi ñi ko jox ñoo ko tànn def ko si ñetti tom bu njëkk bi mooy daara bu ñaareel bi mooy yalwaan bu ñettee bi mooy la solution kon bu ko doon tënk dañ naan alkataatibu wa tasawul wa ma xalluha le euh, daara et taalibe et quelle solution pour une meilleure prise pour pour lan pour pour pour meilleure prise en charge du taalibe di wala di ndongo daara noonu lañ ko defee xam naa ne ñetti tomb yi buñ koy wax dañuy njëkkee bi bi njëkk te mooy daara daara mooy lan mooy benn système bu ñu teg pour jàngale téere yàlla bi doomu jullit ñi ñi xam ko te di ko jëfee ñi sant yàlla bu baax a baax ci may gi nga xamante ne may dootul toll ni moom ci cër bii nga xamante ne cër dootul toll ni moom te mooy cërub alquran yàlla wërsëgal ñi toujours ñu bokk ci ñi nga xamante ne dañuy kër kër yi pour cër boobu ñu mën koo cëroo fii ci àdduna waaye itam ñu mën koo cëroo ci àllaaxira alquran mooy téere boo xamante ne xam-xam ma ci nekk boo xamante ne yàllaa ci wax ak ak ay jaamam téere la boo xamante ne dafa ñëw yàlla ci wax ak ay jaamam ci téere bi téere la boo xam ne dafa ñëw omat nit ñi jëlee leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer parce que jamono bu njëkk bay jam ba yonent bi sallallahu ñëw fekkoon na jamono nu mu organisé woon jaxasoo woon na trop waaye téere bi mooy ñëw pour defar ko ñëw pour defar ab nation muy ab xeet parce que niñ ko waxee ba yonent bi sallallahu di ñëw fekkoon na ñaawteef tasaaroo te kenn su koo def ci palaasu public yi fekkoon na itam injustice amoon fi fekkoon na itam nottante ak jaay dooleeg tooñaange tasaaroo woon ci dëkk bi fekkoon na itam nit ñi doon dundee aw askan rek aw sant si nga daan sukkandiku pour not ay nit yàlla indi téere bi mu nekk benn système de vie mu nek ab nizamul haya bo xamantene julit ñi ci lañu wara tanku ala ya'lamu man khalaq yàlla mi bind mo gëna xam doomu aadama bi gëna xam dundam naka la mëna doxale ba mucc sa mu jël téré bi ni jox ko ko nako ci nga mëna défé sa aduna waye ak sa àllaaxira téré bobu nona ki koy jàngale nee nañ moo gën ci métier yi jàngaleem alquran donte am na ñu ni jàngale alquran du métier ah kay métier la dina leer ci biir doy na rek ci ngëneel sax ñu ni sëriñu daara bi njëkk mooy yàlla sëriñ daara bi njëkk mooy yàlla moo ne arrahman allama alquran moo jàngale alquran kon kon moom sëriñu daara la taalibe bi njëkk mooy sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ndey daara bi njëkk mooy sayidatuna khadija radiyallahu anha yaakaar naa sëriñu daara kon munta màgg ba toll ni yàlla waaye taalibe munta màgg ba toll ni sayidina muhammad waaye itam kenn mënul jëfee diina ci ay ndeyu daara ba ëppale ki nga xam ne mooy sayyidatuna Xadija mi nga xamante ne jëloon na léppam joxoon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir daara ja dox te moo ma kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam magee woon na ko lu bari sax taalibe boobu di yonente bi sëriñu daara boobu di yàlla seen daara ji ñu ngi ko jàng vingt-trois ans la yàlla jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran vingt-trois ans yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ay saxaabaam bu ñuy lim ci saxaaba yi ki nga xamante ne moo njëkk ber daara jàpp ab jàngalekat di ko fay ci baytil maal mooy Seydina Omar ibnul Xattaab ba léegi maa ci premier yi Seydina Omar ibnul Xattaab moo jàppoon jàngalekat doon ko fay muy jàngal xale yi jullit ñi Alquraan waye lam ko don faye mu koy jele baytil mal baytil mal fi mu tole ni bi ko doon wax moy kessu mairie bi ba tax ñak ñàkk jàng àllarba ak alxames sax ci sayyidina Omar ibn Xataab lañ ko jele ñun motax ku bi bu projet bi biy jëflante ñun dañ nan la alak ba alxames la ñuy am jot sayyidina Omar ibn Xataab dafa mësona tukki parce que sa bu dan tukki da indi walel yi sëri benn jour mu tukki indiwaale wu sere ci xëy na daf ko fàtte xale yi ñëw di ko nuyu si xelam dem ci lim leen daan indil fàtte na ko tombeeg àllarba mu ne bu leen jàng tey bu leen jàng suba te lii def leen ko saa bu ñëwatee ñaari jour yi bu leen jàng mooy mercredi ak jeudi te képp ku ci roy dina ko ñaanal yàlla defal ko barke moo tax ñin ñaari jour yooyu mënuñ koo bàyyi loolu moo tënk suñu àllarba ak alxames lu ñu war a xam ñun jullit ñi mooy alquran jàngale ko jàng ko fardu kifaaya la mooy jullit ñëpp la tegee seen loos jullit ñëpp ci la tegee ci seen loos waaye nag yàlla mooy tànn ku ko neex mu noomee ko mu nekk ab sëriñu daara moo wax ci alquran ne summa awrasna alkitaaba alladina stafayna min ibadina ñooy tànn istafa la jëfandikoo mooy segg mooy segg seggaat seggaat ba xam ne kii ku mën a yore daara la nga jox ko ko yàlla mooy nommé waaye mooy affecté waaye mooy folli itam ci daara lu coon a métti métti métti ñi yàlla tànn fokk danañu jàngale alquran loolu mënul ñàkk ci àdduna bi wante itam jàngalekatu alquran yëpp bu ñu ubbi woon internat luy ñàkk jàng ci doomu julli ñi mooy ëpp fuuf parce que li mën a fay chaque fin de mois minimum vingt cinq mille bariwul comme ni nga xamante ne yonente mënul ñàkk woote jëmee ci yàlla parce que loolu ko yàlla togg ak lu mu jafe-jafe yàlla waxoon na ko yonente bi ne laa tukallafu illa nafsak woote gii ñi teg la yow lañ ko togg yow la war yaa koy woote te al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñoo fi doon yonente yi kon li fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi boroom xam-xam yi muy sëriñu daara yi ak ñeneen ñu ñuy wooyee boroom xam-xam te taxawulu ñu ay daara ñoo ko war a tasaare ci xeet wi waaye gis nga daara fi mu commencé méttee mooy fan moy bi yunus sallallahu alayhi wasallam sallam Màkka dem Medinatul Munawwara fofu la daara commencé métti tokhal na daara ji fofu nona dinañ fa taxaw touti pour wane ne toxal daara lo sunna la tokhal daara sunna la man na ci jox exemple yu bëri yunus sallallahu alayhi wasallam sallam bañ koy doog yone yónnee ko xamakan mako xamal warqatu ibn nawfal parce que ba koy wax yu di soog a ñëwal sayyidatuna Xadija bëgg xam lan la yóbbu na ko ci ab abbe bu ñuy wax waraqatu ibnu nawfal waraqa gëstu ay gëstoom ba xam ne ah la ñëwaloon yonent yàlla Muusa moo la ñëwal mooy wax waxyu loolu kese la mais du jinne waaye neexoon na keroog balay sëy nit di génnee dëkk bii di màkk ma fekkee ko konoon dinaa la jàppale yonent bi keroog la xam ne nekkee dañ koy génne màkka mu ni da kon kon danañ ma génne màkka mu ne ko aha li nga indi kenn mosu koo indi te génnewuñ la sa dëkk kon nag yéen sëñ daara yi li ngeen indi kenn mosu koo indi te tuxuloo fi nga dëkk waraqatu nawfal moo ko waxoon yonent bi jamono ñëw yàlla jox ko ndigal na ko toxalal daara ji yóbbu ko madinatul munawwara parce que fi mu nekk ci màkk xat na torop booba sayyidatuna Xadija gaañu na nday daara di gën a mag gaañu na problème yi commencé dugg mu ne ko toxal daara ji Medina mu toxal daara ji Madinatul a am ñu fa am ndeyi daara am ñoo xam amuñu fa ndeyi daara ñi koy wax ahlu suffa ñu matoon quatre cent personnes ñoo xamante ne añ day jot ñi indil leen ci jàkka ji wala yonent bi sallallahu alayhi woo leen añ këram te yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gën ci mbindeef mais nekkul chaque jour lay cin di tàkk këram loolu rek waroon nañ faa xamee ne alfadliya laysa fi dunya fa ngëneel kontewul ne boo nekkee ci àdduna waroo sonn ki amee ngëneel ci yàlla moo war a gën a sonn ci àdduna kon daara bu njëkk a ngi noonu foofu la daara commencé di sonne loolu mooy daara mooy système bu ñu teg pour jàngal doomu jullit yi téereb yàlla bi ñi xam ko bañ koo féetale ci benn côté kese ñëpp la war ñaareelu tomb bi mooy yalwaan yalwaan bu ñu koy wax dañuy fàttaliku ci taarix ci ginnaaw pour rek tooñaange yu ñu tooñ daara ba muy commencé day yalwaan mu am 1048 la fi alquran dugg si 1048 mu tombeeg bay diina du dugg ci Sénégal lislaam ci la dugg ci Sénégal 1048 école française bi ñu njëkk fon euh, taxawal fii ci Ndar mu ngi nekk le 7 mars 1817 waaye école ba nekkul woon système laïque déedéet diine la parce que France seeni école bu njëkk nekkul woon layik seeni sëriñu daara mooy abbé yi ñoo yoroon école yi daan fa jàngale diina noonu la demee woon ay sëriñu daara la woon daan jàngale ci école yi diinaaw christianisme bañ demee ba at yu mujj ci lañ ko nangu maanaam ba fa républicain bi duggee ci la nangu daara yi ci abbé yi toxal ko mu nekk système mu laïque kon daara maam français bi ak daara ji seen rawante mu ngi nekk 719 daara nga fi njëkkee école français 719 la ko fi njëkkee juróom-ñaar téeméeri at 769 la wax juróom-ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay at la ko fi njëkkee. te avant français di fi ñëw colon yi fi nekkoon mbindum arab mi ñu bindee alquran bi lañ daan doxalee seeni administration bi parce que moom lañ fi fekkoon moo daan doxal arab bii moo daan doxal moo nekkoon langue officielle bi buñ demee ba 1857 tombé fekk ñuy woo général Faidherbe ci la jël école bi def ko laïque waaye itam mu mu mu ko ci réew mi yëpp kan mooy Faidherbe bu booba Faidherbe bu moo njëkk tooñ daaray alquran mooy ki ñu tuddee estati bi ci ndar bind ci suuf si ne Séné bind ci ron stade bi ne Sénégal mi ngi lay ndamoo kan lay ndamoo xaaral kii Sénégal di ndamoo mooy ki nga xamante ne lakk na ay daara yu bari rey na ay jàngalekatu alquran bokk na ci ñu mu rey benn imaam di sëriñu daara bu dëkkoon ndeer moo ko rey ak ku ñuy wax Cheikh Moustapha boo xam ne la woon bu Cheikh Omar Foutiyou taal dajee nag Cheikh Omar Foutiyou Tall sax guerre moom Faidherbe rey benn sëriñu daara bu ñuy wax Abdullahi aaj rey ko lakk ko publiquement waalo rek nee nañ lakk na fa lu mat ñaar fukki dëkk ak juróom waalo kase bu muy dajeeg Cheikh Omar Fouti yu ci même at bi la 1857 bi ngay xamante ne moom ci lay laïcisé li nga xamante ne mooy école yi ca dëkk bi ñuy wax Madiana tooñ ba doyul de bi ñuy demee ba mille 1871 ci lañuy ñuy bu tuddee illettré mooy al ummi yu nee na ñun ñooy ñu xamul dara jànguñu nee na ñun dañ leen tuddee illettré waaye ñu jàngul ñoo xamante ne bi nga fii ñëw sa administration bi ci ñoom nga sukkandeku ci seenu xam-xam nga sukkandiku ba taxawal sa système dama ne feder bu moma nona bu fi fekkoon yàlla muhammad kaddu gogo la koy tuddé bu fi umar ibn al-khattab kaddu gogo la koy tuddé bu abou aboubacar as sadiq siddiq kaddu gogo la koy way al haji malik si mam borom touba al abdoulaye abdullah ku kum fi fekkoon dina la tuddee kàddu gii nii li tax ma wax loolu mooy ñii ma lim amuñu garaat ci alquran bu ëpp nekk sëriñu daara sëriñ Muntaqa toogaay bi lu mu rëy rëy ubbi na ay daara kon sëriñu daara la moo tax ku xas sëriñu daara yaa ngi ci boole xalifa diina yi ñu demee ba 1960 ñu am suñu indépendance xanaa xëy léegi mbir mi ci suñu biir la waaye ba léegi kàddu gi di continue dana am ay projet yoo xamante ne ñàkk xam daara moo tax bu ñu ñëwee di waxtaan ak yow sax maanaam dangay xam ne carrément ñi jëfandikoo wuñ sa xam-xam mais dañ la bëgg wax nga dégg yow. sabab bi waral yalwaan bi mooy xeeb gu ñu xeeb lu rëy te mooy bi yàlla bi bàyyi ko ci suñu ginnaaw a gannaaw te noppi itam ba noppi itam gàttal ko diggante jàkka ja ak daara ja ñun foofu lañ def téere bi dañ ne téere bi mooy jàkka ja ak daara ja te pour te téere bii la yonent bi sallallahu alayhi wa doon doxalee état wam moom la Omar ibn Khattab doon doxalee état moom la Aboubacar as Siddiq doon doxalee état wa mu nekkoon état yu jub ñu bàyyi fi lii parce que Sénégal ñaara fi ñëw mooy faranse moo fi ñëw fekk fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xajal ko mooy alquran xajal ko mu dem ba xaw a am doole nappaaje ko ñun tam ñu albatiku di leen jaamu jaamu la ah kay yonent bi sallallahu moo ñu firil lan mooy jaamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn su dafa waa Addi ibnu Xaatim Xaatim mooy ku tabee gu Addi moom la ñu ne bi abi yaqtada Addiyun fil karam wa man yaqtada abahu fa ma zalam abahu la ñu wax foofu noonu munu ko yéen da ngeen ni jaamu Addi yéen da ngeen ni jaamu seeni borom xam-xam parce que booba Addi nekkuloon jullit. mu ne ko déedéet mu ne ko ah, xanaa du ñoom ngeen gëm ba li ñu leen wax ngeen def lu ñu leen tere ngeen bàyyi mu ne waaw mu ne loolu mooy jaamu ji mooy koo xam ne lu mu la wax nga def lu mu la nga bàyyi kon kañ ñun loolu la ñuy def constitution bi niñ ko gëmee lu ñuy wax la def lu mu ñu tere ñu bàyyi ko bala ngaa dee ñu respecté wu loi bi te loi bi respecté wut suñu loi ñin respecté wut ñi ñun tam dama ne alaa lahul xalqu wal amr kon jot jot na torop ñun jullit ñi ñu taxaw seetlu parce que école française bii ñu samp fi mu indil ñu système mu boppam mi système mu laïque ñun ñoo koy financé ñun jullit ñi ñoo koy financé ci suñuy alal di leen di tabaxal ay écoles yu ñuy jàngee waaye bàyyi jàngalekatu alquran bi kon ñi ñooy responsabilité bi avant état ñun ñooy responsabilité bi parce que buñ ne taxawal ay daara dimbale daara du caaginu ne ki joxe doomam ci daara ji rek moo war a dimbale daara déedéet kooku ni ñu dimbalee élève bi jàng école buñ ko ko dimbalee woon li ci des mu mën koo def waaye tàmbali bu dul faj dara jarul tàmbali kon ñun ñi financé école yi ñoo waroon a financé ba daara am ci raison bu ne ay daara am fa bu njëkk danga nga daan gis daar yi bu ñu ubbi daar yi chaque dimanche ak mercredi dañ daan xëyi toolu daara ja moo xam ku doomam nekk ci daara ja la wala ku doomam nekkul ci daara ja loolu am na ñu ko mën fàttaliku fii nga xam ne yeneen dëkk yi dañ daan jóge ci yeneen i dëkk di ñëwul ne tey la toolu sëñ daara bi te sëñ daara du leen daan woo sax ci tool ba mais ñoom ñoo takkoo nekk ay bayu daara ay ndeyu daara daan xëyalil sëriñu daara bi bàyyi toolam loola moo amoon ñi dema dema dem ba mujj gi ñi bàyyee ko maanaam ñi seen xale nekk ci daara ji kese dem ba jamono gën a métti suuf bañ mbay neexatul ñooñu tal seen kër waaye seen doom yi mënuñu ñàkk jàng ñi bàyyee ko sëriñu daara bi sëriñ daara bi dem a dem ba ci kanam xam ne lii bu ko toppee mbay mi doxatu te nit ñi bàyyee nañ ko tool yi bu ko toppee daara ji dana tas te moom daara ji mooy priorité am moom mu toxal daara ji comme ni yonent bi sallallahu alayhi yaakaare woon ne bu toogee Makka daara ji dina tas mu toxal ko Medina maam borom Touba yaakaare woon ne daara ji bu ko bu ko bàyyee euh, Njaareem daara ji dina tas mu toxal ko Touba Seydi Hadji Malick noonu. nii la sëriñ daara bi yaakaaree ne bu toogee foofa continuer bàyyee nañ ko tool yi léegi kenn dimbaliwu ko te joxe nañ ko xale yi xale yi mënuñoo ñàkk jàng te yàlla moom laa nommé pour mu nekk sëriñ daara war a jàng amul dara boddi kenn. ñu waxee journée nationale du talibé yaakaar naa ndongo daara yee toog ñoom ñoo waral tey suñu jotaay bi waaye di sargal tamit suñu doom suñu jarbaat bi nga xam ni yàlla dogal na mu teewaloon waa Fatick. ci teewaay bu mucc ayib tamit ci concours tari alxuraan international yàlla dogal mu jël fa dixième ñu koy ñaanal yàlla déwén yàlla na jël première te yàlla na yàlla leeral xam-xamam yàlla sàmm ko te wattu ko euh, di yëkkati kàddu di kontaan ci daje bi di kontaan ci daje bi en tant que partenaire mais kontaan ci daje bi en tant que acteur bu nga xamante ni nii dafay yëngatu ci wàllu protection de l'enfant SOS village d'Enfants, Coco ku ko dégg intervenir ci Sénégal depuis 1976 donc am nañ 48 ans d'existence au ci Sénégal 2026 la a 50 ans Té liggéey bi ñu fi liggéey ci walu protection de l'enfant, amna am yaakaar ni ku nekk mën nga koo ràññeel sa bop bo jëlé Fatick en tant que tel ñu ngi fi intervenir en 2011 ci benn projet bu ñuy wax renforcement de la famille amna ay bénéficiaires yo xamné ñu ngi ci bétail bi tok yo xamanteni bénéficier wu woon nañ ci projet bobu donc depuis plus de 13 ans SOS mu ngi intervenir au niveau de Fatick mais particulièrement dara ñu ngi ci commencer liggéey en 2016 bi nga xamanteni ni am nañ projet Union européenne bu ñëwoon doon jappalé dara yi nga xamanteni ni ñoo nekkoon ci Fatick euh, ñu yaakaar nag ni tay intervention wu SOS ni ñu ko articuler buñ ci état mënoon a sukkandiku jafe-jafe daara dina gën a wàññeeku ndax dañ ko séddale si ñetti pàcc benn bi ñu ne dañuy intervenir directement ci taalibe bi maanaam jël ko en charge sur le plan sanitaire tey bépp xale bu nga xamante ni yaa ngi nekk bokk si projet bi nga xam ni moom la SOS di di di di di jëmmal fii ci Fatick am nga couverture sanitaire SAMU CMU lañu leen enrôler que muy sëriñ daara bi muy njabootu sëriñ daara bi mais muy ndongo daara bi nga xamante ni ni tey mu ngi ci biir daara bi di jàng à cent pour cent dañ leen a jël en charge ku ci nekk am nga sa carte boo feebaree da ngay dem district sanitaire bi la gën a jege wala nga dem hôpital te jëlañu leen jëlal jëlaluñu leen CMU bu mille francs bi bu 2500 bi nga xamante ni dina mën a dem ba au niveau régional ba dem xawa dem ba day dem ba Touba dem ba Mbour dem ba Joal ba ba Kaolack donc lolu boko assurer les talibé bi yakarna walum wàllum gi yaram fété na boor bala bobu dañ leena a njëkk formé ci les premiers secours d'urgence parce que ci biir daara bi xale bi mën na gañu gaañu boo xam ne hôpital donc formé nañ sëriñ daara yi ci ñoom ñu mëna topato lolu nonu ci daara bi bu leen ëppee loxo ñu soga jël seen carte dem dem hôpital euh, sur le plan de l'amélioration du cadre de vie maanaam seen dëkkuwaay parce que fiñuy ñuy ak nu ñuy nekkee dafa wara mëna muccu ayib comme ni nga xamante ni fa la xalé bi jàng tubaab mën a xëy sol lu rafet dem tok ci salle bu set mëna jàng li jàng jariñ ko ñun aussi loolu dañ ko xalaat ba tax na. ñi nga xamanteni ni ñoo bokk ci projet bi améliorer nañ leen condition de vie yi nga xamanteni ni moom la xale yi nekk ñi ci bëgg ay matla ñu jox leen ay matla ñi ci bëgg ay mer gàddu ñu jox leen ay mer gàddu fexe ba ñu am ay moustiquaire fexe ba ñu am ay barigo yu ñuy def ndox fexe ba ñu am en tout cas dëkkuwaay bu mucc ayib ñi ci amul woon ay toilette ñu indil leen ay toilette parce que sutura dafa baax loolu intervention la rek exemple ci xale bi maintenant sëriñ daara bi ci boppam. il faut que ñu intervenir si moom oustaz Abidine mi ngi ko doon wax léegi tey ñoom bu ñu amee bu ñu amoon ay moyen yu nga xamante ni dina leen mën a permettre xale yi toog ci daara bi jàng mais duñu leen bàyyi ñuy génn ñun yaakaar nañ ni xëy na bu ñu leen dooleelee ñoom ci wàllu koom comment wut ay financement yoo xam ne ñoom ñooy choisir activité bi ñu bëgg a def ñu financer leen ci accompagner lañu leen ci mais ba pare. préalablement ñu former leen ci domaine d'activité bi nga xamante ni moom choisir mu nekk une technicité bu nga xamante ni dañ koy am pour mën exercer effectivement li nga xam ni moom mooy activité génératrice de revenus. maintenant le combo di ci di ci ruusee day dellu si waat si ci daara bi renforcer ñi nga xamante ni ñoom les ndey daara les associations taalibe association marine yi on a financé des projets projet précédent bi ku ci ñaari association yàlla dogal na moo am biir Fatick muy ndey daara ak yaay taalibe ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo yam si ñun euh, même niveau de traitement bu ñu am lu ñuy defal ñii moom la ñuy defal ñee donc ñoom ku ci nekk amoon nga poulailler bu nga xamante ni dañ ko accompagner ak trois bandes de sang ku ci nekk amoon nga une boutique communautaire mais ku ci nekk aussi amoon nga moyen boo xamante ni di nga mën a def ay transformation des produits locaux maintenant ñoom seen revenu yooyu noonu yëpp aussi dañ koy injecté waat ci. gestion et prise en charge des enfants talibés ci vivent daara yi mais il y dañuy liggéey ak parents xale yi nga qui ni les enfants, ca dëkk ba koy les familles biologiques en général fay nekk ñom dañuy am ay activités génératrices de revenus yu accentué aussi agriculture donc SOS day jël euh, financement mu dem yobul leen ko ñom renforcer en termes d'intrants agricoles comme engrais comme urée des fois ak semences, pourvu que pour nous récolter nous avons une partie de la récolte pour nous indi ci daara bi pour nous jappalé sëriñ daara bi mu mën a yor seen donc yooyu ñu leen denk donc ak ñetti acteurs yoy nga xamanteni ñoo seq xalé bi yaakaar naa bu ku nekk jouer pleinement ce rôle daara bi dootul am jafé jafé te ci loolu. xale yi ngay gis ci mbedd mi ñuy yelwaan yépp du ñëpp a nekk ay taalibe en général taalibe yelwaan comme ni ko oustaz waxee autant dañ ko jàppee woon comme socialisation pour toj xolu xale bi pour nàmpatal ko ci suufe mu bañ a rëy mu bañ yëg boppam mu suufeel boppam ngir xam-xam bi muy sàkku bu duggee ci boppam mu mën fa jariñ mais léegi dañu gis ni exploitation économique bi moom moo ci gën a bari te yemul rek ci niñ koy waxee ci daara bi mais da ngay déggu fii si marché bi dangay gis sa yaay booy boo xamante ni dugg na boo dugg moo xam ni moom attanul dugg mi mu woo taalibe bi yen ko ko fay ko fukki dërëm donc loolu exploitation économique la te ci loolu ci la ñuy interpeller autorités yi ku mel ni monsieur le préfet. ñu ngi woon ci exploitation économique bu xale yi ma fàttale ne du xale yi yelwaan yëpp ñoo nekk ay taalibe tey boo duggoon ci marché bi di nga fi gis ab madame Sarr mais mu ndugg ba ndugg pañeem diis boo xam ni moom attanu ko mu woo taalibe bi yenn ko ko fay ko fukki dërëm et pourtant moom xam na ni. Si na gis na ni xale bi sonn wala bëgg économiquement ci loolu nag dañu bëgg interpeller autorité à ce que ñoom ñuy jël ay décisions allant dans le sens de l'interdiction de cette exploitation économique là à travers le travail des enfants tey jàpp nañ ne ñun comme stratégie bi SOS doxal autour de l'enfant enfant talibé muy di liggéey ak maître coranique bi di liggéey ak association marine bi mais di liggéey également ak ñi nga xamante ni mooy way jugu xale yi ya nekk ci dëkk ba loolu bu ko état dooleeloon mendicité dootul am te ñiy mbubboo taalibe di nekk ci mbedd mi bu boobaa dañuy teel a démarqué wu parce que xam ni taalibe amatul ci mbedd mi donc autorité yi ci loolu lañ leen di interpeller pour que à travers ce plaidoyer ngeen mën a jël ay décisions yu nga xamante ni day dem dans le sens. soit de la réduction ou de l'éradication totale de la de la de, l'exploitation économique des enfants maintenant d'ici d'ici d'ici d'ici dolli pour bañ que ni euh, ñun FES tamit amna une éducation alternative bu nga xamné introduire nañ ko ci daara yi muy les classes ECB ma ngi gis ay amna ay moniteur monitrice yo nga xamante ni ñu ngi ñëw ci daara yi jour yi nga xamante mom la oustaz doon wax légui ni duñ jang alcorane ñun dañu recruter ay moniteurs IEF formé leen ñuy jàngal xale yi français jour yi nga xamante ni xale yi duñu jàngi duñu jàng alxuraan juste pour éviter ñuy am temps bu bari bu ñuy taxawaay si mbedd mi muy di alxames ak ñenn ñi àjjuma moniteurs yi dañuy ñëw defaral leen cours instant bii ba ki démb bi ñu demee di visiter gis nañ ne xale yi mën nañu lire mën nañu compter mën nañu bindal seen tur seen bopp te loolu yaakaar naa njariñ la muy si ñun muy si ñoom. SOS. au niveau international depuis 1949 la li ko waral mooy benn mbindeef bi nga xamante ne du woon sax ku am doole waaye dafa fekk une situation bu nga xamante ne xale yi ñu ngi ko doon dund après la guerre mu ne lii duma ko seetaan sama yoon da ciy nekk dinaa ci wut solution may wax ne kooku tey su nekkoon ne mu ngi dund ba ñëw Sénégal su ñëwoon lu muy wax ne mooy problème bi mooy xale yi muy fekk ci mbedd mi ñuy taxawaalu di yelwaan ñu bokk ci daara wala ñu bañ a bokk ci daara problème la ñun ñëpp ñu ciy romb chaque matin ñu leen di gis ci yenn situation yi ñuy wax ne suñu yoon nekku ci waaye SOS nag moom gannaaw bi nga xamante ne fii Sénégal depuis 1976 Cheikh wax na ko mu ngi doon jël en charge xale yi nga xamante ne. ñoom li ñuy wax dañu perdre la tutelle parentale mooy dañu dem ba nga xamante ne amatuñu ñu leen yor amatuñu benn kilifa benn nit bu nga xam ne mën nañ leen yor SOS di leen di jël ci village yi di leen fay yar di leen di defalal lépp loolu lañ ñu gënoon a xam waaye ñu xam ne ne suñu toogee di seetaan dinañ dem ba nga xamante ne village yi te attanatuñu ko mënatuñu sax jël yenn xale yi kon léegi dañuy fekki famille yi ca fu ñu nekk. jàppale leen ba nga xamante ne dinañ euh, famille yi dinañ mën a jël en charge seen njaboot ni mu waree ñu dem di dem ba nga xamante ne yematuñu ci loolu ñu ne taalibe yi tamit foog ñu am luñ ci def moom loo indi projet bi yi nga xamante ne euh, léegi kii def na historique bi waaye loolu yëpp bi may xoolaa démb suñu statistiques yi dem nañu ci 7000 plus de mille yu nga xamante ne bénéficiaires yu nga xamante ne SOS moo leen di jël en charge dans les cinq région ak même léegi boole nañ ci Kaffrine fatigue, ci Fatick boole ci Kolda huit régions yi nga xamante ñu ngi fay intervenir néanmoins le problème mu ngi toujours monsieur le préfet madame le maire wax nañ ko l'éducation est une euh, compétence transférée daara yi bokk ci ñu wara laisser en rade daara yi lu ñu war leen a nu état organisé éducation bi nga xamantene mooy de Jules Ferry noonu la ñu war a def de sorte que ñu organiser daara yi bi nga xamante ne tamit liñ ci bëgg a am dinañ ci am parce que sur loolu liñ ci xale yi ñuy seetaan suba ñun moom la ñu nar a hérité suñu suñu dëkk bi moom la ñu nar a hérité ñuy xaar ay cadre légaux yu nga xamante ne yéen état yaa leen ñu ci mën a dimbali yaa leen ñu ci mën a jàppale pour ñu dem collectivité yi ñuy xaar si yéen ngeen dugal ci seeni budget ay ligne yoo xamante ne c'est dédié à la protection de l'enfant des lignes budgétaires yu nga xamante ne aussi day jàppale sëriñ daara bi day jàppale daara yi day jàppale ndeyu daara yi ba nga xamante ne liggéey bii ñuy def parce que muy liggéey bu mucc ayib mais ñu soxla état ci seen wet ñu ngi leen di accompagner vous le dites monsieur le préfet mais nous voulons également que vous nous accompagniez

té mom moy gën gi mbindeef moom la wax kon bët bobu lañu wara xolé nongo daara bi nga xamante dinañ ko jox place bi mu wara occuper ci société bi bi mu war occuper ci daara ba ci biti ak fépp fu mu mën ci def ko fu mu mën ci nek nekk. des lay daara et leur démembrement ici présent à l'occasion de cette cérémonie vous remercier du fond du cœur d'avoir sacrifié à la tradition pour honorer votre présence en un mot cette association regroupe 2250 membres au niveau national, avec comme objectif la prise en charge et l'amélioration des conditions de vie des talibés. D'où la nécessité d'impliquer les des acteurs, des partenaires, mais aussi sous la conduite de l'administration ici présente, sous l'autorité du préfet et le maire de la commune de Fatik. Cette cérémonie vient à son heure quand on sait que le président de la République, nouvellement élu, s'est félicité tout cérémonie, récemment du concours de récital du Saint-Coran et de l'enseignement arabe en création de la direction des affaires religieuses à la présidence de la République. Sur ce, nous avons des partenaires émérites qu'il faut présenter à l'assistance et présenter publiquement leur intervention à côté de l'association. Il s'agit de SOS. Réalisation depuis 2016. Appui aux IGR individuel 27 mètres coraniques, élèves de moutons, amélioration des conditions de vie, 962 enfants talibés dans la commune de Fatik, matelas, nattes, lampes, lampes solaires, barils, baril d'eau, toilettes, réfection, réfection dortoir, éducation, mise en, de, mise en de 25 classes ECB avec des, des moniteurs confection des hangars, dotation des livres coraniques. Santé, 9200 talibés inscrits dans les mutuelles de santé. État civil, 30 talibés inscrits à l'état civil. Appui, parents, biologie, dotant engrais, dotation engrais, urée et semences. loolu nekkul lu tuuti kon SOS na fi yi dañu ba mu nga cet àll ba di béy waaye kuy béy bu nawet wàccee war ngaa mun a indi saako dugub mun ngaa indi saako gerte mun ngaa indi saako mboq boo ko joxee sëriñu daara bi dina ko mun a échangé la mu cay def cere mu def ko cere la muy def caakri mu def ko caakri loolu SOS def na ko non seulement dimbale na sëriñu daara yi jàppale ndongo daara ci seen tëraay ak fa ñuy fanaan mu ñoŋ ba buy taw du senn defal leen ay mbaar yu ñuy jàngee defal leen ay toilette suturukaay fexe ba ñu am ndox waaye seen waajur ya nga nekk ña ñu la joxe te ca village ñu dem fekk leen fa jox leen engrais jox leen semence bu pour bu nawet bi jeexee ñu andi ci daara ji kon jaarama SOS mënuñu leen aw gërëm dañ leen di bàyyeek yàlla ndax ci xale ngeen di dox te kuy dox ci xale yàlla moo lay fay kon yàlla ñu leen yàlla fayal ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di wax ne ndey daara yi lu ngeen def ñu ngi leen yàlla dina leen ko fay ci si yéen ak seen njaboot waaye lépp lu ngeen di defit bu leen ci gestu bu leen ci xool def leen ngir yàlla ndax ku def ngir yàlla yàlla fay la waaye lii itam ñu ngi lancé benn message le nouveau gouvernement xamante ne ndongo daara gouvernement bi fi jàll def na de waaye def yépp nag yàllaa ko mun fa mu yem nañu fa tàmbalee dem fexe ba sëriñi daara yi ñu fexe ba sëriñi daara yi kayit yi ñu doon jooy ne seen daara yi mënuñoo am autorisation jafe-jafe yi ci nekkoon ñu fexe ba jàppale leen ci oyofal leen ko ba daara bu ñu dem seet ne kii kat war na mun a jàngale apt na pour jàngale ñu jox ko mu am autorisation d'enseigner bu ko defee dina dina fexe ñu mun a identifier daara bu ci ne ku war a jàngale kan moo war a jàngale ndax xew-xew yi xew ci réew mi bari na toujours ñu ngi jàmbat viol yi ci daara yi kan moo war a doon sëriñu daara sëriñu daara du violé ko élève da koy jox xam da koy yar waaye du violé ka jàngale kay joxe turam ne sëriñu daara du sëriñu daara ndax lépp a ci ne ndax xam ngeen ne rek ah jur gi bari na du dëgg kon nag ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla defal ñu dégg ak topp. seen site d'information Sine TV nekkee fi ci diwanu Fatick andi leen lu bees tak lépp lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamante da fay top lépp lu jëm ci walu actualité Sine TV nekk fi ci diwanu Fatick togal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV joko jàll.